lu technique bien sûr pare na donc Seydina ñu tàmbale ko ak Walf Quotidien waaw Walf Quotidien dafa xëyee fësal lu jëm ci front social maanaam barabu y maanaam liggéeykat yi nga xam jamono ci ña ngay wane seen bopp ñu ngi la ko yéen a kaay yi xëy fësal yéen a ko dala santé njàng mi ba ci fonction publique ba sax liggéeykat yi nga xam ne nekk ci biir collectivité locale yi daal jàpp nañ nga xam ne bu Sénégal mooy mu fexe jublu ci nga xam ne neexul ba neexul waaye FMI euh, fay ëllëgu Sénégal daal euh, tey na xel bu fekkente ne sukkandiku nañ ci la nga xam ne wax noonu la ko yéenekaay gi di Walf Quotidien xëy fësale soxna Fatou. bu jógee ci Walf Quotidien ah. dañuy ñëw ci le quotidien le quotidien yéenekaay dafa xëyee dellusiwaat ci lu jëm situation économique et financière bi nga xam ne ni Sénégal mu ngi koy dund jamono ji. mooy situation bi nga xam Sénégal mu ngi ko dund ci wàllu koom-koom di ko dund ci wàllu koppar euh, loolu bu ñu sukkandikoo boo xam ne mee ko nañ ko ci exécution budget bi ak it ay dépenses yoo xam dafa yow maanaam dafa dafa élevé lool euh, ba tax yéen euh, kaay gi di Le Quotidien xëy fisal ci xatam bu njëkk ne koy dundee noonu la ko yéen kaay gi di Le Quotidien xëy bu ñu jógee ci le quotidien dañuy ñëw ci lii quotidien moom dafa xaw a safaanoo ko la nga xam moom le quotidien wax parce que moom dafa jàpp ne le FMI kon ña ngay confirmé FMI kon ña ngay dëggal li nga xam ne le président Macky Sall wax noonu la ko yéenekaay gi le quotidien xëy fësale euh, nga xam ne bu ñu gën a grave su fekkente ne état bu ay matukaay yu dëgër ngir mën a génne Sénégal ci situation mu ne noonu la ko yéenekaay gi di le quotidien xëy fësale yéen gi gii di la témoin mu génne feneen ne lu jëm ci maquillage mu soxal finance publique bi la FMI daanaka ñu ngay dëggal Ousmane Sonko ña ngay wax ne Ousmane Sonko la mu ci wax lu am la noonu la ko yéen kaay gi tax gars yi jàpp ne FMI daanaka dafa désavoué ki nga xam ne moo di euh, président Macky Sall noonu la ko yéen kaay gi di la témoin xëy fësale yéene kaay gii di l'info xëyee dellu soir ba tey ci kàddu yi nga xam ñu ngi ko nangoo ci waa FMI ñoom la ñuy sàkku ci état bu Sénégal mooy ay mesures yu audacieuses maanaam daal foo ñu takk seen fit jël ay mesures yu dëgër yoo xam ni dina mën a tax Sénégal mën a traversé jafe-jafe yi nga xam na ne ko dund jamono ji ci wàllu koppar yéen kaay gi di l'info ci loolu xëy fesal tey jii Sud Quotidien yéen kaay xëy dellu si waat ci déficit budgétaire ak bi nga xam état bu Sénégal jël nañ ko mu mot ci diggante 2019 jàpp 2023 yéen kaay gi ne waa FMI daanaka ña ngay ànd ak waa IGF ci la nga xam lañ waxoon yéen kaay gi moo xëy fesal loolee ba tax daal la ñuy sàq état bu Sénégal mooy ñu jël ay mesures yu radicales su fekkente ne bëgg nañu euh, génn situation bi ñu ne loolu la yéen kaay gii di Sud Quotidien bu fekkente ne sëriñ mu ngi suivre euh, Sud Quotidien kon fa lañ toll moom la xëyee tey jii bu ñu jógee ci Sud Quotidien dañuy ñëw ci yéen kaay gii di 24 heures 24 heures yéen kaay dafa xëy dellusiwaat ci FM bi nga xam ni. daanaka dafa xëy tey ji di confirmer maanaam di dëggal dégâts yi nga xam ne ni Ousmane Sonko wax na ko keroog ci ndaje bi mu doon seex taskati xibaar yi te mooy situation bu jégg dayo ba am ne dañuy takk seen fit jël su ko fekkee te bëgg nañoo génne wala bëgg nañoo nga xam ne ñu dund jamono ji noonu la ko yéene gii di 24 heures xëy fësale yéen kaay ngir suuf sax xay dellu siwaat ci loolee ne FMI ña ngay confirmer gouvernement bu Sénégal la tribune yéen kaay xëy dellu siwaat ci bu dee yéen kaay gii di la tribune dafa xay dellu siwaat ci Sénégal bi ñu ne jamono ji ba daal mu ngi wéy di dund ay jafe-jafe yoo xam daal ñu koy dundu ci wàllu wàllu koom-koom euh, waa FMI kon ñoo xëy fësal loolee li ko nag bokk na ci euh, maanaam defi financier financier bi nga xam gouvernement bi euh, Sonko ak Diomaye moom la ñu gën a joxoñ baaraam lu li ak i déficit budgétaire bi nga xam daanaka dafa dépassé 7,5 pour cent euh, si suñ suñu PIB bi mu nekk nag loo xam ne ni yéen kaay gi de la tribune ci loolu la xëyee tey jii bés bi le jour xëy ci loolee wax tamit ci bataaxal bi nga xam ne waa FMI bécc nañ ko di wax situation bi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund maanaam suñu réew mi ngi koy dund jamono si wàllu koom-koom euh, déficit budgétaire ak it bor bi nga xam état bu Sénégal amee na ko daanaka daal bokk na ci li nga xam ne moo gën yokk chiffre ba tax yéenekaay gi ne waa FMI la ñuy xaar ci état bu Sénégal la ñuy xaar mooy Cour des comptes daal di dëggal la nga xam Ousmane Sonko wax na ko waaye lu ci mëntaan waa xam wax na ko keroog ci ndaje mu doon seq taskatu xibaar yi moom la ko yéenekaay gi di bés bi lu mandat dafa xëy dellu ci crise bi nga xam ne ni euh, kër gi di poste mu ngi koy dund jamono ji ministre nag Aliou Sall lañ joxe ab baaraamu tuuma ne li ñu gaaga mooma ba tax la ñu ci moom mooy mu jël ay matukaay génne travail si jafe-jafe yi dund noonu la ko yéenekaay gi le soleil yéen a ngi xëy dellu waat ci euh, président Bassirou Diomaye Faye ak directive yi nga xam joxe na ko mu soxal njàkkum xëyum ndaw ñi wàllum mbay mi wàllu càmm gi euh, ba ci aussi fexe ba wàññi état bi na muy dundee ak it fexe euh, ba jéem a fësal li nga xam ne ni moom moo di seen gis-gis mu soxal vision 2050 mu nekk nag ay directives yoo xam ni président Bassirou Diomaye Faye jël jël na ko démb ci ndajam xelukaay jëwri yi noonu la ko yéen a kaay gii de la soleil xëy fësalee bu ñu jógee ci le soleil dafa xëy dellu si waat ci géej gi nga xam ni maanaam si fleuve du Sénégal bi nga xam daanaka dafa fax hôtel euh, yi daanaka yenn dëkkuwaay yi le population bi nag jamono ñu ngi dund situation bu jéggi dayo ba tax yéen kaay gi xëy tey dañu xamle ak loolee l' observateur yéen kaay xëy ne ñoom dañoo sol seen daal dem utili fële ca Bakel euh, di rek situation bi nga xam ne Sénégal yi ñu ngi koy dund jamono ji dem nañ fu ci mel ni Balu dem nañ fu ci mel ni Jawara daanaka lu ci ëpp fanweeri junni ak juróom ci ay doomu aadama jamono ji daanaka euh, day euh, maanaam dafa mel daal bokkatuñ ci réew mi ndax euh, ndox mi daanaka dafa ñëw daal leen xaajale ak réew mi noonu la ko yéenekaay gi di l'observateur xëy fësale laas yéenekaay tam xëy dellu si waat ci loolee ne état yi nga xam ne ñu ngi dund jamono ji ay jafe-jafe ci wàllu mbënd moomu leen génn daal lu ci solo juróom-ñetti milliards ci francs CFA ngir taxawu leen noonu la ko yéenekaay gii di laas xëy fësale yoor yoor ne parti Pastef ni nga waajal élection di ñëw Euh, samedi nag euh, fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu ne dañoo fas yéene amal ab meeting bu mag fële ci Dakar Arena euh, lañ ci jub rek mooy fas yéene fësal yoon yi nga xam jaar ngir mën a gàddu élection yi noonu la ko yéen kaay gii di yor yor xëyee fësalee Vox Populi xëy dellu soit ci loolee ne Sonko mu ngay lance ab collecte de fonds pour sa pour campagne am noonu la ko yéen kaay gi xëy fësalee yéen kaay gi ne képp koo xam am ministre nga wala waaye loolu ci sa koppar lay doon waaye aussi euh, sàkku daal ci militants yi kenn ku ne na nga contribuer lu ci toll ak 1000 francs ci francs CFA maanaam ñaari téeméer dërëm ndax leen tax joor mooy fexe ba seen campagne électorale bi daal di koy financer seen bopp noonu la ko yéenekaay gi di Vox Populi Sonko les échos les échos dafa xëy dafa xëy dellu ci Sonko bi nga xam daanaka dafa lancé ab campagne de fonds campagne levée de noonu la ko yéenekaay gi xëy fësalee mu nekk nag loo xam ne nii euh, ko fas yéene tàmbale ci ab ziga meeting bu mag bu fas yéene fii ci Ndakaaru arena noonu la ko yéen a kaay gi di les échos xëy fësale direct news xëy dellu soir ci élection législative yi di ñëw wax itamit ci sensu ñaari candidat bu ci ne daf ci xëy dal nag Assane Sine di ko xam-xam dama ci ne wala am a am ay député ñu ci yéen gi direct news libération dafa xëy dellu soir ci doy waar loo xam ñu ko nemee ko fay ci Dakar dem dikk mu situation bu jéggi daw boo xam ne kër gi duñ ko fay dund mu nekk loo xam Euh, du njaaj la am déet si rekaay gi libération xëy na tey ji daal di ci amal ab taxaw seetlu record lañ koy jeexale wax yi tamit metti suñu gayndeelee ne colonne vertébrale équipe maanaam daal digg bi daal dafa war a doon loo xam dañ ko war a assuré su fekkente ne bëgg nañoo am dara ci euh, ci coupe d' afrique des nations yi ñu fas yéene ñu fas yéene joué fële ci euh, Maroc noonu la ko yéenekaay gii di yor yor xëy fësalee soxna Fatou li daal mooy li gën a fës ci bopp yëglekaay yi mhm. yàq léegi incha allah rabi ci xibaaru benn waxtu yi wala ñaari waxtu yi ci digg bëccëg lay doon mhm. ak kii di Abdoulaye Bob Abdoulaye euh, a ak euh, bataaxal bi nga xamante ne génne na ko waaye tamit euh, gis nañ ci tamit euh, li nga xamante ne mooy revenir nañ ci point de presse bu Ousmane Sonko leader Pastef donc ñëw ci fundraising bi nga xamante ne wax na ko muy collecte de fonds pour législative yi nga xamante ne moom la ñu jubtu jublu waaw tàmbali ko ak FMI rek parce que man bon FMI mhm. li may jaaxal ci ay kàddoom boo liir journaux yi dañ lay dañ lay réeral. Hmm. waaw boo lire journaux yi dañ lay réeral. dañ réeral. waaw hmm. dañ lay réeral parce que finalement doo xam sax fooy teg sa tànk. Hmm. mais boo liiree. maanaam journaux yi boo leen di lire. parce que boo xoolee fu ci mel ni Walf Quotidien ma ngay naan les sombres prédictions du FMI. FMI waaw c'est vrai ku nekk ak. <laughs> nga ñëw ci le Quotidien mu ne le pessimiste. pessimiste. kon moom. ngay ñëw. ci lii Quotidien mu ne le FMI confirme. confirme président Uh-huh. mais par contre boo ñëwee ci le témoin waaw dafa ne le FMI conforte Sonko et son gouvernement presque ah. si lay bind c'est vrai on comprend désavoue de la République mm-hmm. en même temps aussi nga ñëw aussi sur quotidien aussi mu bindal lu ni mel déficit budgétaire et dette publique mm-hmm. le FMI conforte l'IGF mm-hmm. le FMI confirme les dégâts 24 heures cest dire que fii aussi nga ñëw si source a mu ne le FMI confirme le gouvernement uh-huh. on on comprend plus moo tax des fois on est confus là. Mhm. ci journaux yi da lay poser parce que tu te poses la wala ci ban ci yan mhm. war a a fiyewu. fiyewu bien sûr. <laughs> traitement information parce que man mënu ma comprendre loo xam ne nii daanaka yéen a bokk benn texte bi. Mhm. benn texte la benn kàddu la ñu nangoo ko ci waa FMI. kenn ku ne ak na nga ko tiitre. kon ça veut dire que est-ce que ñu. dañoo interpréter comme comme. je ne sais pas xaw ma dañuy interpréter je ne comprends pas honnêtement. Ah. man dama xamul c'est quoi. man daal man daal suñu suñu média bi jaaxal nañu ma quoi man je ne comprends pas. <laughs> day na non c'est vrai parce que mënuñu am benn texte. Hmm. bu dee kàddu la bàyyeekoo ci benn nit. Hmm. ñoom ñëpp kenn ku ci ne am la nga dund kenn ku ne am na ko interpréter bon bu la neexee. Hmm. mais man daf may xaw ma jaaxasoo ci sama sama bopp mais l'essentiel lu ciy mënti am. Mm-hmm. nañ jaaf e-, FMI moom benn structure la boo xam ni gars yi ñoo ko fi créé ñoo ko créé en boo fàttali ko en 1944 dañ ko fi tax créé. Mm-hmm. te. il a dit FMI confirme Macky Sall. Macky Sall lii quotidien moo def loolu mais par contre boo demee ci yeneen journaux yi am na yeneen journaux yoo xam le quotidien le quotidien de FMI ne FMI pessimiste. nga dem ci Walfadjri mu ne la euh, les sombres prédictions du FMI. Mhm. nga dem si yeneen journaux yi ñu ne FMI confirme man bon je ne sais ci ban journal daal laa war a fiyewu <laughs> wala ci yan journaux la ñu war a fiyewu mais de toute façon bon dem dañu am suñu comme euh, heure bi dafa jot bon nañu def suñu tuuti commentaire rek après ñu ñaarelante quoi <laughs> d'accord kon noonu ñu ngi analyser ko comme ni ko sentir. journaliste daal sama wax nañ ne effet bi. ci affaire moom mooy journaliste yi nga xam ñoo fi toog di la jaay ay ay éthique di la jaay ay déontologie. xanaa boole woo ci Walf Quotidien xanaa soo man naa xam benn affaire na nga xam ko. doo ci boole Walf man tu ma tudd journal mais l'essentiel man bu may wax moom ñëpp laa yemale man si comme ça man aw ma xàjj ak sedd waaw de toute façon boobu du ma tudd benn journal mais l' essentiel li wér mooy que man des fois pose la question parce que c' est des journaux yoo xam ne. laaj des journalistes yoo xam ne ñoo fi toog saa su ne di la jaay état di la jaay déontologie. Hmm. di hmm. nganda ngandalu. pourtant am na ci nag de. moo tax gis nga éthique bi am éthique bi dàq ci àdduna. Hmm. éthique bi ngay jàngee ca kër ga. waaye c' ça bi nekk ci kër ga. du moroom du borom benn du benn du moroom benn. léegi ñu wax ci FMI FMI xam nga benn structure la boo xam ne ni ñu ngi ko créé boo te bu gis gars yi créé ko li ci jublu mooy fexe ba stabiliser. Mhm. système monétaire bi. Mhm. en même temps aussi fexe ba di jéem a di fexe bay gestion. Mhm. crise financière yi nga xam daanaka mu ngi am ci réew yi ñu koy fexe naka lañ koy téye. loolu ba moo taxaw a jóg FMI. en même temps aussi fexe aussi ba pousser gars yi. ñuy jéem di am di créer ay emploi ak ñoom seen mais boo xoolee FMI du Afrique kese daanaka lay liggéeyal ah parce que boo xoolee ba xool plus de cent quatre-vingt réew cent quatre-vingt-huit réew ëpp na ko sax daanaka ñu ngi ñu ngi ci FMI mais li ñu mën a wax mooy que FMI surtout boo jëlee fii ci diwaan Afrique mhm. structure la boo xam ne dafay nekk rek di jéem a créer maanaam di jéem a imposer ab dictat. ah dictat nga ko les pays africains man sama gis gi laa la wax. waaw mais loolu mun nañ ko ko baatu parce que wolof yi dañuy naan. Mhm. wala tubaab yi dañ ne kii pay commande. waaw ah oui ne ku la abali gët wan la koy xoolee. Mhm. bien sûr loolu kese la. Mhm. mais boo xoolee ba xool effet mi neexul ba neexul réew Afrique yi dañuy dem di jëflante ak ñoom waaye chaque jour bu fekkente dañuy jëflante ñoom balaa